moo tax Serigne Babacar borom bone kaare bi amul morom danoo toog kër Baye Mbaye Donde benn bis benn waay ñëw nuyoo ni Baye Mbaye Donde lay laaj ñu yóbbu ko ci Baye Mbaye ndeysaan histoire la nag duma ko nettali mu ni ko daam ku ma mayoon biye màkka wër naa sama gox yépp tàggoo naa ba pare ni leen damay dem ci diggante bi mu nangu ko te góor moomul ñaari wax ma tëdd biig nelaw nelaw mënumaa nelaw ma jaaxle lool sama xel ni napp ci Serigne Babacar borom bonekaari bi ma ni naa ñëw ci yow bàyyi mbay doon de sa cofeel ci Serigne Babacar nga ñaanal ma yàlla ndax ma dem màkkare ndax tàggoo naa ba pare bàyyi mbay ni ko duma la ñaanal demal raw du Serigne Babacar boo demee boo taxawee ne ko Serigne Babacar sa soppe ba alaaji mbay doon de nee nga yóbbu ma màkka waa ji ni ko lool rek lay wax mu ni ko waxal lool rek ñëwaat ndeysaan waa ji dem dugg ci biir jàkka ji nee ma def tahiyatul masjid tourné ne tooguma sax dama taxaw ni ko Serigne Babacar Sy sa soppe bi alaaji mbay doon de nee nga yóbbu ma màkka ñëw retourné wax ko Baye Mbaye Baye Mbaye ni ko demal nga ñibbi yow ma kan waaye incha allah ren ñii dem màkka kenn du la fi bàyyi ci barki Serigne Babacar Sy waa ji ne ma ñëw ba garage waroon a ñibbi ndar ne sama xel ni comme ñëw naa ba Tiwaawan naa jël oto rek dem Dakar seeti sama ndijaay bu ma retourné door a dem Ndar ne ma jël sept place ne bi oto bi départ chauffeur bi ni ma fooy wàcc ma ni ko Colobane lay wàcc ne bi ma ñëwee ba Tëngéej maa nga romb benn tente bu mel nii ne maa ngi seen benn photo Serigne Babacar bu mel nële di folote ci biir ne ma ni chauffeur bi may ma damay wàcc mu ni ko déet yow da nga ni woon kolobaan ngay wàcc mu ni ko mën ruus naa ñëw ba Tëngéej romb tant boo xam ne gis naa fa photo Serigne Babacar bu dee juróomi minit la sax dinaa wàcc barkeelu jëlaat beneen oto door a dem Colobane ne chauffeur bi droite ma wàcc ne bi ma wàccee di dugg ci tente bi ne kay waxtaan ma ngay waxtaan ci kéemtaan yi Serigne Babacar Sy ne ma ñëw rek këf rajo ba ne mënu maa way ma ni xalifa yónneen gërëm na la ne ma daaneel rek ndikite yoo alaaji bàcc Diop ma nga woon ca biir tente ba mu jël rajo ba ni anekk ni xalifa yónneen gërëm na mun ko maa ngi nii mun ko may naa la biye màkk ci barke Serigne Babacar Sy fa ñu mbay e daa mel ni soppi sëñ Babacar nekkul fi still good.